jafandul lu tax su ma tey Lac de Guiers numéro war a daje ak Boy Niang Boy Niang dugg géej am fi neuf victoire ñaari mbër dese ko muy Lac de Guiers numéro ak Balla Gaye numéro 2 dafa bëgg daan Lac de ngir dem ci ci ci ci Balla Gaye numéro 2 lan la di wax Lac de Guiers non je ne man li ma def ci làmb aw ma sax droit du tontu benn question ci benn mbër ak ku doon li am solo mooy Lac de Guiers dañoo bokk ndey bokk baay bokk ñu lu muñ ko séddoo muy géejawaay rawatina Casamance dañuy tàllal loxo ñaan yàlla yàlla may ko ndam maa ngi ci biir aw bien maa ngi si biti wala maa koy jàppale loolu leer na askan bi du tey rek laa musa sonn ci combat la dëggee numéro 2 rawatina bii bi nga xamante ne combat la boo xam ne moom moo ñu ko gën a moo ñu ko gën di ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam ci jël bu set wi ndax géejuwaay gi yëpp ñu ngi préparé combat bi rawatina ay mbokkam ak ñu ko bëgg di ko sonn di ñaan gi moom ndam rawatina waa Casamance bu baax a baax kon ñu ngi koy ñaan yàlla na ko yàlla may ndam. waaw xam nga tey ci géejuwaay boo dee mbër bu mag Lac de euh, Balla Gaye 2 la ak Lac de ñëpp suñu ginnaaw lay topp loolu yàlla moo ko dogal mais li ñu xamante ne mooy suñu devoir ñu taxaw Lac de wane na ko nag géejuwaay gi yëpp ñu ngi taxaw sa kanam ñu ngi taxaw sa ginnaaw yàlla may ko ndam bis bi loolu mu ñu findi ñu taxaw ñaan dëkk loxo tey waaw combat bu ñu waajal la ndax euh, bi dafa fekk tey géejuwaay gi ñëpp bëre ba pare di jàppale Lac de Guiers bu ñu waajal la Boy Niang tey ñu dégg ko micro mu ne ne na ci waa Guédiawaye yow yaa ci des ak la déggee de loolu nan ngeen ci xalaat non xalaatuñ ci dara loolu question la ak wax la rek donc parce que ba mu ko waxee ba tey mi ngi dugg Guédiawaye bi daan waaw xam nga yàlla moom bu dogalee ni da ngay am ndam kenn mu ci dara ñu ngi ñaan yàlla dootul gis matt sax muy boole fan dernier mot dernier mot bala dernier mot ah Lac de Guiers dafa bërëg mbër bu ne bërëg ay champion làmb nag ak Boy Niang sax yàlla moo war a dogal te ñu war a bëri rek mais Lac de Guiers ku ne bëri ku bëri Yékini bëri Modou Lo bëri Eumeu Sène kon combat warula mën a jaaxal am nañ droit pousse ko dañuy pousse rek yàlla na tàq na Boy Niang nit ku baax la bëri Lac de tax moo ko loon waruma ko wax doomu mbër la champion la mais damay ñaan yàlla Lac de Guiers yàlla may ko ndam ci kaw Boy ay ndam la yàlla tudd victoire bi géej waaye mënu ñàkk dafa fi am force. non non dara boo ñaar champion la bukki guddi la boo ko dàkkee mën na ñëwee nu ne laata guerre am na entraîneur am am na staff li ma mën ma ànd ak moom ci entraînement yi ñaax ko te yàlla bu soobee yàlla na ko may ndam. lan moo tax yéen waa Géejawaay yéen ñëpp ngeen booloo àndandoo jàppale Lac de Guiers numéro 2. non ñun li ma la wax rek Pape Maman li ma la am loo xam ni Géejawaay ni Malick Gakou Malick Gakou bu coow ma sanam dañuy woo ñu déggoo nekk benn mais amatuñ ko Pape Mama mi ngi def lu mu mën mais benn nit rek mënul lépp côté boobu la Malick Gakou dañ koo ñàkk bu amoon li dañuy woo mais amatuñ ko bu la diir ñu dégg ko mais léegi lépp deñ na Balla Gaye guy gi léegi si kanam da gis maa moom yaa gën a xam ak keneen ak keneen